tiis la boo xam ne dañu yeewoo ak moom muy accident boo xam ne bu ñu xool ci suñu histoire mel na noonu ba suñu gis accident wu circulation ay oto yu entraîné autant de morts fanweeri nit ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan ci accident bi fanweer ak juróom si saa si ñeent ñi bi ñu ñëwee ci l'hôpital la la ñu ah loolu nag démb deer bi tey ñu ngi wax ñeent fukk ak benn waaye dañu fekkoon ci morgue hôpital bi ñaari nit ñu génnoon àdduna donc waxtu wi ñuy wax fanweeri nit ak juróom-ñeent ñoo génn àdduna ci accident bii muy accident bu metti ni ni nga xam ne noonu la amee téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekkoon ci ñaari oto yi muy lim bu diis ñu gis ne nag jot na ñu jël ay matukaay ci oto yi transporte doomu aadama yi ci condition yi ñu leen di transporte ci condition yi ñuy joxe permis si at yi nga xam ne ñiy dawal aussi war nañ ko am parce que boo yebee juróom-ñaar fukki nit war nga xam ñi nekk sa ginnaaw doomu aadama lañu ay borom kër lañu ay yaakaaru njaboot lañu ay avenir réew mi la donc loolu dafa laaj maturité dafa laaj taxawaay gis nañu itam ne waxtu wi ñuy daw jaaduwul donc loolu ëllëg bu conseil bi sayto yooyu yëpp danañu jël ay dogal yoo xam ni ak ci at yi nga xam ne oto yi am nañ ko màggataay bi loolu yëpp danañ ci jël mesure pour ñu mën a sécuriser mën a assister population yi pour bañ di gis lu mel ni di am bés bu nekk donc maa ngi jaale njabootu ñi nga xam ne seeni mbokk bàyyee nañ ko wàññeeku nañu ci accident bi di ñaan yàlla mu xare leen àjjana di ko def ci turu réew mi yëpp di masaw ñi nga xam ne feebar nañu am nañu ay blessé ay blessure ñu visité nañu leen ah, takku lim bi takku na lool waaye nag ñu sant yàlla bi hôpital bi nekkee fii ci Kaffrine ndax lu toll ci téeméeri nit am nañu ay gaañu gaañu muy ay blessé te ñoom ñëpp hôpital bi jël na leen en charge ginnaaw kenn ku ñu évacué ministère de la santé tam yónnee na ay docteurs yu mag ay chirurgiens yu jógee Ndakaaru yegg si nañu pour renforcer waaye hôpital bi am na bépp matukaay pour mën faj blessé yëpp kon loolu jànn sant yàlla mu mel nii kon fajkat yi taxaw nañu ni ñu war a taxawee lépp lu soxla it pour faj leen am na macha allah. sapeur pompier gendarmerie nationale administration gouverneur ak ay service am procureur de la république ndax ndëgam ay nit faatu nañu ci accident il faut mu joxe ndigal pour ñu mën a libérer corps yi am na si ñaar fukk yoo xam ne xam nañu ñan lañu ñooñu dinañ leen jot seeni mbokk gouvernement bi dina leen gunge ci mbir moomu ci wàllu solidarité euh, ginnaaw loolu itam gouvernement bi dana taxawal ëllëg ci njiitalu premier ministre conseil interministériel boo xam ni ak ministère des transport ministère de l'intérieur forces armées ak ministère des finances pour ñu xool condition yi ñuy demee ci transport public ndax Sénégal mënatul bàyyi lii di continuer mënatul wéy oto yi yóbbu transport ku ne gis na ni ñu mel kon réew mi war na def effort état bi dugal ci loxoom ñu renouveler parc bi ñu moderniser système mu transport de passager fexe ba oto yi daw nekk oto yu nekk ci yoon waaye oto duñ ko defar ba pare nga ñëw transformer ko teg ci porte bagage te loolu ki tabax oto bi construire ko boolewu ko si def ay si si diggante bi loolu da ngay indi danger pour ñi si dugg indi danger même pour ñi ngay daje donc yooyu yëpp mooy dogal yi nga xam ne bëgg naa ëllëg bu ñu ko saytoo ñu mën ko ñu mën a jël dogal yi ginnaaw loolu def naa décret pour def dëy ñetti fan maanaam ñetti fan yoo xam ne Sénégal ci dëj lay nekk ndax tiis bu mel nii drapeau yëpp daañu ko wàccee à partir de ëllëg ah, dinañu permettre tam ñu gën a saytu xoolaat li nga xam ne moom lañu ñu war a def ngir suñu réew mën a génn ci jafe-jafe yu mel ni maa ngi sant vraiment ñëpp ñi nga xam ne euh, surtout xale yi ñëw may ci direct population bi spontanément loolu itam ñu ngi leen di gërëm euh, di gërëm euh, nit ñi nga xam ne dañu ñëw indi seen doole pour jàppale ñi nga xam ne ay mbokk blessé lañ ñëw ñoom it jógee fu nekk ñi jógee Kédougou ñu Tamba ñi Vélingara ñi Kolda parce que benn bis bi fa la jóge ñi Kaffrine nag feneen Euh, loolu tam maa ngi sant ñoo ñëpp waaye nguur gi si ndigalu si euh, loxo ministre Samba Ndiobène Ka bi yor solidarité dana def lépp lu ci war euh, pour que ñu mën a jàppale njaboot gi jàppale ñi nga xam ne ñàkk nañu seen mbokk waaye aussi jàppale blessé yi ba nga xam ne dana mën a wàññi seen coono ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp والله